monsieur le maire, au nom des sages de Mourkat, nous vous disons, nous vous dirons merci. Merci pour le symbole, parce que comprendre une chose et la pratiquer, c'est encore mieux. Ça fait partie de votre mission, mais vous auriez pu déléguer un conseiller pour vous représenter. Si vous avez pris le soin de venir magnifier rehausser cette journée, nous ne pourrons que vous dire merci. Alors, comme le disait l'autre, nous voulons un burkat sans soleil. Conformément aux directives du chef de l'État, nous prenons l'engagement de continuer cette campagne, de la pérenniser pour plusieurs raisons. Parce que l'arbre participe à la purification du milieu. Je ne vous apprends rien. Grâce à la photosynthèse, l'arbre fournit de l'oxygène aux humains, aux êtres vivants, mais nous débarrasse aussi du CO2. Ça, c'est très important. L'arbre aussi participe à la biodiversité du milieu. Parce que planter un arbre, c'est en quelque sorte amener la vie dans ce milieu-là l'arbre participe aussi à la réduction, ou bien je peux même dire, à l'amélioration de la qualité de vie des êtres vivants. Parce que l'arbre nous fournit de l'ombre pour se rafraîchir, donc diminue la chaleur dans le milieu, mais l'arbre aussi constitue euh, en quelque sorte ce qu'on peut dire euh, à améliorer la qualité d'existence des êtres vivants. Donc rien que pour ces raisons, nous nous engageons fortement, selon les directives du chef de l'État basile Diomaye Djaher Faye, nous nous engageons fortement avec l'ASM Bourkat, avec les populations de Bourkat, pour rendre ce milieu-là agréable. Et c'est pourquoi je vous ai dit, nous prenons l'engagement pour que Bourkat soit un quartier sans soleil, un quartier vert, verdoyant, où il fait bon vivre. Donc, euh, monsieur le maire, voilà les quelques mots que j'ai à votre endroit et je vous remercie. Nous sommes peut-être comme que représentant euh, délégué de quartier, Wanaki français, notre cher papa aussi, le doyen et le, et le président d'honneur de l'ASC, à savoir M. Danfa Wanaki français, de Mébougueil, jël sama carte def ko ci olof pour ñi nga peut-être teew nañ fi ak ñi nga après ñoo la vidéo yi ñu xam lan moo xew li xew Mbourkat tey jii tey dafa considéré journée de l'arbre ñu war célébrer célébrer euh, garab jëmbat garab pour son environnement ASC porte porté volontaire jël événement bi def jël ko pour ñu planter ay garab autour de Mbour de et de Dakar 2 ci lolu monsieur le maire ñu invité ko mu ñeu fekk ko présider aussi événement bi ñu avons ko tout la toute la population de Mbourkat loolu nak bo gisee ñu def ko tey jii dañoo yor ASC bu ñu nee ASC nag ñu bëri dañu yaakaar ni volé volé sport rek la mais ñun ASC autour de la ASC dañoo am volé environnement volé éducation volé santé volé développement yooyu maintenant autour de la ASC mo wara tay jii ASC porté volontaire jël journée bi organiser ko ñu jël maam ay garab aux et forêts jox ñu garab ñu wara a jëmbat garab yi fim mu ni may wax ak yéen nous avons 200 plantes am nañ 300 qui ont été war mais seulement pour cette journée am a 200 plantes qui xam moo fi mu différents plans plantes qui ont été dañ maintenant def ko euh, aussi des citronniers aussi des orangers yo xamni mo ngi fi yo xamni bëgg ñi nga ñoo ci quartier bi té soxla ko seen biir kër bu ñu ñëwé jaar ñu kenn ku ne jox la ben jëm ko sa garab sa li ñu bëgg population muy muy jigen muy mag mu ndaw kenn ku nek jëmbat ben garab ci quartier bi au moins lo suñ ko defee comme niko ko doyen F daan fa waxee dinañ amoon quartier vert parce que liñu bëgg mom moy quartier bi doon quartier le quartier le plus vert de la région de Thiès té lool inshallah gëm naa avec ASC bi volonté bi nga xam ak engagement bi nga xam nek na fi suñu topé lool mun aussi dinañ atteindre objectif boobu a ah, di jaajëfal ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ñi ci biir kër yi té ñëw ñu xam ne peut taw bi moo leen téye te aussi dimanche motax moo mais ñëpp daal xamni ñu ngi fi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ah euh, di gërëm aussi l'adjudant des eaux et forêts bi nga xam ne ñëw na fi teew vraiment njëkkoon na ñëw ci suba fekk nit ñu ñëw mu demaat ñëwaat loolu yëpp mu waay rek engagement am na fi quartier bi daa porté volonté pour lépp loo xam ne développement la lépp loo xam ne pour environnement la lépp loo xam ne pour santé la lépp loo xamante pour éducation la avec le maire ñu nekk ay partenaires mu jàpp ci ñu jàpp mais dans la main ñu ànd liggéey suñ koy ndax suñ ko liggéey incha allah quartier bi na dem au nom de l'ASC au nom de la population de Mourkat, au nom de la population de Dakar 2, nous, vous remercions, vous les autorités, nous, remercions aussi les invités, aussi de l'Enouani, vive, la, vive, la, vive Mourkat, vive Dakar 2, vive l'ASC Mourkat, aussi que euh, nous soyons vainqueurs aujourd'hui pour notre match qu'on a joué aujourd'hui avec l'équipe de Gassou. On vous remercie. Merci, Machallah. Merci beaucoup. Salam alaikum, euh, Wa Thiès. Nous de Thiès Ouest mais également jiital ci fi ñu nek muy wa mbuurkat donc ñu ngi leen di nuyu ñi dëkkee mbuurkat yëpp jiital ci nuyo bi le délégué de quartier Souleyman Diémé ak euh, ki nga xam ni moo wax ci turam muy le professeur Ansoumana Diédiou di nuyu l'adjudant des eaux et forêts di nuyu conseil yi ñu fi fekk nga xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk conseil municipal bi nuyu le doyen d'Anfaxa bi wax au nom des sages nuyu le président Kader muy le président de l'ASC Mbourkat dinaa délu siwaat ci ñom di nuyu xalé yi di nuyu jigen ni di nuyu ñu dëkkee Mbourkat yépp bu ko défé li ñu fi tax je pense ñima jitu wax nañ ko moy dañu ñëw pour euh, jëmmal bis bo xamni suñu état état du Sénégal nga xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk moo tànn bis boobu ni def koy jagleel garab ñu jëmbat garab comme ni ko adjudant waxee kilifa yi nga xam ni ñoom la fi yàlla teg bu yàggul daat koy jël def ko bis bu mag tànn dëkk bu sell bi di Touba pour fas yéene ko fa defee mais ñu ñaan ñëpp ku nekk fa nga nekk nga jëmmal bis bi nga magal ko bu defé motax ñun bi nga xamé ni le président de l'ASC Mbourkat muy AIC bu bes ñu samp ko fi ci quartier Mbourkat ni ñom bis bobu dañ ci bëgg amal jëmbat garab ñu ni kon wokkatu bu dess ak dajé gessu la motax ñu ni leen kon nañ ko defando ben yoon bu ko defee ñu ñëw ak équipe municipale bi nga xamni ñom la andal ak conseil yi dëkk Mourkat ñu maggal bis boobu donc ma ngi jaajëfal kon ASC Mourkat di leen ñaanal yalla may leen euh, ndam ci seen jangonté bi tay ñu am waye fi ñu bëgg a yóbbu ASC bi dans l'avenir yalla na leen yalla may ñu aggalé ba fa en tout cas ni ñu démarré seen ASC bi dal na xel moy samp ASC bu bess ce première activité li nga njëkk def mooy nga jëmbat garab loolu je pense que euh, xaw ma ku leen ko inspiré mais en tout cas am nañ ci yaakaar daal bu baax ci ASC bi yàlla na leen ci yàlla defal ndam comme ni ma ko waxee donc euh, di ñaan ay c yëpp bu yàggul laa dalal ay euh, ASC Walidane bokk na ci lii ma leen waxoon mooy dama bëgg ay c bu ne ren nga jël benn. initiative def ben activité citoyenne sa quartier mo xam lo def donc imposé wuñ la waxuñu la li ngay def mais yow yaay xol activité citoyenne bo meuna def nga def ko pour sa quartier manam chaque jour li ma daan wax bu ngay joxe subvention yi AIC yi mooy dama japp ni AIC li ci nek ci énergie ak xalaat ak euh, ressources humaines yamale ko ci sport rek ci ben 2 3 mois loolu gâchis la pour man donc kon ASC bu nekk à travers ce micro fii ñu taxaw mbuurkat bëgg nañ ren dans la commune de Thiès Ouest nga def benn activité citoyenne maire bi ñëw présider ko ànd ko yéen taxawal ko donc loolu la ñuy ñaan les vingt huit ASC mbuurkat mooy vingt huitième bi tey ñoom ñëpp loolu lañ bëgg ñu def ko donc bu ko defee leneen liñ bëgg a wax mooy jëmbat garab je pense adjudant wax na ko dafa bokk ci ñun li nga c'est dañu gëm ni orientation politique la bu ñu gëm ñun bo xamni nous ba ci en 2022, at mu né ñun dinañ ko def ci commune at mu né suñu première année 2022. nous Mbour 4 bi defon nañ wetu keur doyen Badji. fofu lañ 3 même at bi 2022. dem grand standing dem HLM route de Dakar dem carrière première année bi loolu lañ defoon deuxième année bi ñu dem Somme dem Randoulène nord dem Randoulène sud dem Mbour 1 dem Thiès noonu def Sapko ci deuxième 23 2023, euh, bi. Grand Thiès mooy Randoulène nord ak Randoulène sud xam nga Grand Thiès mooy tur bi <laughs> mooy tur bi moom la nit ñi miin mais officiellement administrativement le quartier. wala ñaari quartier yi sax yi séq Grand Thiès mooy Randoulène nord ak Randoulène sud ren jii nii nii nii nii Modou Diaw mi nga xam ne fii la dëkk Mbourkat nekk conseiller nekk membre commission environnement bërki démb lañ mujj waxtaan ma ne ko nañu jàpp bis bi ñuy def ñun suñu reboisement communal donc ñun commune bi defaguñu suñu reboisement donc dañu ñëw rek accompagner ASC bi pour ci reboisement comme c'est symbolique journée nationale la ñu defandoo ko mais ñun commune bi am nañu suñu journée bopp boo xam ni comme ni ma ko wax chaque année dañ koy def donc ren dinañ ko defaat incha allahu rabbi donc ñu bëgg ren def euh, Mbour 2 sud stade ak euh, Modou Diaw beneen quartier bi ak A ak Sapco voilà bokk na tamit ci li ma ko waxoon ren xaw ma euh, xel yi mooy gisee wala idée yi dama ni ko comme def na ñaari année di jëmbat yenen garab ren dañuy commencé jëmbat arbre fruitier ni ngi ni taxaw duma duma du ma wax lenen lool ma ko nañ commencé def lool ci orientation yi ma ko joxoon ma ko ren dañuy commencé def arbre fruitier faf yalla def gis nga kilifa yi ñew ñom joxe <laughs> joxe orient mu convaincide donc pour wax la ni rek je pense que montre yu bax yëpp ñoo bokku heure té ñun ñëpp lu bax la ñu lu ñu bëgg donc euh, garab du ci delu ci ñepp xam nañ mooy et puis ñun liñu gissone gisoon bañ koy def orientation politique majeure ci suñu programme moy Thiès dëkk la bu amul geej amul dex donc amul ndox amul ouverture sur la mer ba paré ay carrière wër ko donc fo dem fi mo xam Gunjaan la mo xam Fuuta yi nii suñu ginnaw mo xam nga dem côté euh, Sindia bi Dangote donc ay société la yo xam ni euh, dañuy dégager di polluer atmosphère Thiès c'est la première raison minière du Sénégal Faut nit ñi xam ko donc société yooyu di dégager yoo xam ni baaxul ci jaww ji donte nag li ñuy rapporter économie moo industrialisation moo demee maintenant loolu nag li koy fexe ba du lor askan wi lu bari moy garab donc loolu lañu gissone motax ñun ñu gëm loolu té inshallah yalla yàlla bi ñuy may ñu nekk ci maire bi chaque année dinañ ko def bu soobee yalla

mooy quartier bu bees mooy euh, xëy na ci cees mooy quartier bi ñu mujj a samp mun nga ko tuddee noonu euh, te li fi war a nekk yëpp ci équipement nekku fi collectif amul école amul poste de santé amul case de tout petits amul terrain boo xam ni norme bu xale yi mën a defee esport amul benn équipement collectif moo taxoon ma ni leen ñun duñ ci xaar état dañuy tàmbale donc ñu ci atum 2024 bi dinañ def suñu pose première pierre école élémentaire Mbourkat lolu ñom ñi taxaw euh, mën nañ ko sété def nañ ci suñu budget 50 millions yo xamni ren lañuy démarrer bala at may jax bu soobee yalla dañ fi déllu ci wat waaw tek première pierre école élémentaire Mbourkat bëgg ko tabax ci ñaari at bëgg nañ kon ren ak déwén déwén bu soobee yalla balaa at ma deux mille vingt cinq di jeex ñu ubbi école élémentaire Mbourkat loolu la ñu bëgg parce que xale yi ñu ngi jàngee ji route de Dakar 2 wala Mbour 3 nga xam dañuy dox lu sori pour dem fa te ku ne xam ne waa suñ ci yore Sadio ku ne xam na ni loolu baaxul ci xale ci sécurité am ci dal xelam ak donc baaxul donc foofu la ñuy tàmbalee ñun ci équipement collectif yi bañ ci xaar kenn suñu paree ci loolu dañuy jublu ci poste de santé bi. yalla sax mën na def sutura parce que ñi ngi waxtaan ak ay partenaires le délégué mi ngi fii mën na témoigner limay wax yónni na fi ay partenaires boole ak mom pour ñu dem xolal ma poste de santé bi ak case des tout petits bi loolu bu fekkee yàlla antul na ko mën na am sax euh, loola sotti balaa ñun ñu koy jël en charge ci suñu budget donc ñu ngi ñaan suñu borom yàlla sottil ko donc bu ko defee nga xam ni parallèlement la ñuy tabax école bi ak yeneen infrastructure yooyu ma wax donc pour wax leen ne rek mbuurkat bokk ci suñuy priorité dans Thiès Ouest ci ginnaaw aussi def nañ fi éclairage public conseillers Conseil yaangi ni ñom la équipe technique bi bi doon andal ñu def fi ay lamp. xëy na nag matagul dajeegul lépp mais wañi bu ne ci ci ben lay commencer comme on le dit donc am na lu fi def donc yenen yi ñu ngi ñew ci walu éclairage Benen bi aussi mooy euh, nommé nañ délégué de quartier bu bess muy Jules Diémé wax naa di dañ fi ñëw def cérémonie officielle bo xamni dañ koy installer donc papier bi dem na signé nañ ko mais officiellement xam ngeen ni délégué de quartier buñ ko tanné war na am cérémonie bo xamni askan wi yëpp dañuy génn donc ñu fekkee ko officiellement ñu samp ko donc loolu dina am kon ñu ñaan leen yéen wa Mbourkat yëpp bis boobu bis buñ ko tànnee yéen ñëpp ngeen génn sagal seen délégué de quartier donc incha allahu rabbi kon ñu ngi leen di invité pour pour loolu incha allah bu ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm donc nous le félicitons au passage donc Mansour ak Modou jëw ñi fi dëkk conseil xam nañ ni yombul woon tànn ko voilà mais yàlla def na sutura tànn nañ ko ci jàmm donc loolu moo am solo peut-être fi ñuy terminer mooy euh, ñaanaat ñëpp rek comme ni ma ko waxee léegi commune Thiès Ouest dafa nek commune bu am solo ci Sénégal mais particulièrement ci Thiès parce que moy buntu Thiès donc ñu gëna fonkat li ñu am gëna xamaat li ñu am donc amna fi ay projet yu état am surtout mbour kat mbour kat bu siwé tay moy kër yiñ fi tojon loolu ñëpp xam nañ ko loolu mi ngi en cours sotteegul ñun nak taxaway biñ ci wara def en tant que autorité ñu ngi koy def parce que le comité du président le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye comité ici, nous na Le collectif bi représenté Mbourkat dirigé par Pape Cissé Je au passage ma gavion yi donc nous avons fa ñuy wax ci suspension donc na ci liñ leen Mbourkat quartier mais Thiès ouest particulièrement donc kon dañu bëgg li ëpp ci parcelle yi fi nek ñukoy joxé té te Thiessois yu bari ñu kër li ëpp ci parcelles yooyu ñu jox ko wa Thiès lolu bokku na ci liñ leen waxoon té lolu c'est possible parce que waxuma sax 484 hectares yi mais nouvelle ville bi rek c'est plus de 3000 hectares donc lolu je pense que ceesuwaay yi nga xam ne toll nañ ci am kër kenn ku nekk nga may ko ci benn deux cent mètres carrés loolu représenté wul dara te buñ ko amul xawma fan lañ koy jëlee parce que Thiès lii moo fi desoon ci suuf donc ku amul fii kër bay boo nga xam boo moytuwul doo dëkk Thiès à moins que nga am ndono ñu te ñi fi am seen papa am kër bariwul ñu ci bari dañoo jugee ci àll bi ñëw sanc fi ba ay at kër jafe leen d'ailleurs li indi mur kat loolu la d'ailleurs moy nit ñi mënu ñu am kër dem ci forêt bi diko toj pour dëkk fa donc ñu ñaan kon euh le président Bassirou Diomaye Diakhar Fay et son gouvernement loolu ñu bañ ko ñu bañ ko fàtte manam ñi neew doole ñoo mur kat ñoo tax mur kat am kon bëgg nañ comme suspendre na pour mbir yi léral pour redresser wat dañu bëgg ñooñu neew doole gis ci seen projet peut-être fi suspension suspension aussi comme 484 hectares il faut hectares yi foofu problème problème bi fa am ñu saytu kan ak ku collectif service domaine accompagner côté lever suspension bi hectares parce que foofu amul problème boo xam ben nit jox ko fa ay nouvelle ville donc comme amul problème Vous nous ñu lever suspension bi ñu may population yi ñu continuer mëna tabax. bi ñun suñu ñun commune frais de bornage autorisation de construire. instant bi encaisser dara. kon population yi ñu mais ñun commune ñu parce que nous buñu waroon encaisser ko parce que papier actuellement donc loolu aussi ñu ngi profité waxoon naa ko keroog bi may def bi may euh, réceptionné boulevard Boubacar Sall ma ni kon suspension bi arrangé wul kenn du njariñu population yi du njariñu commune bi nga xam ni fi la Mbourkat nekk ba pare concerné wul maanaam li lëndëm concerné wul quatre cent quatre-vingt-quatre hectares yi nga xam mooy premier décret bi parce que ñaari décret yooyu ñoo décret bu njëkk bi ak deuxième bi créé nouvelle ville donc avoir un problème une nouvelle ville Il faut que suspendre parce que nous lañ ay nit ñu jox leen hectares hectares mais amul donc bu ko fait lañ donc di leen euh, jox euh, dajé comme ni ma ko waxee ñun tamit suñu reboisement journée reboisement inshallah allah bu ñëwee dinañ ko yëgle ñi nga xamni Nous ñëpp am nañ jot ñu fekk ko incha allah jërë ngeen jëf salaamaaleykum. wa en français bon nous étions venus dans le quartier de Mourkat, qui est un quartier symbolique pour euh, célébrer en rapport avec les instructions des plus hautes autorités son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye célébrer la journée nationale de l'arbre. Et cette initiative vient de l'AIC Mourkat, qui est une AIC nouvellement créée, qui a décidé, qui a pris la décision sur elle-même de célébrer cette journée en nous conviant en tant qu'autorité à prendre part à cette journée. Donc, nous avons trouvé que c'était une excellente initiative et ça rentrait en droite ligne avec notre vision dans l'environnement. Donc euh, nous félicitons donc l'AIC Mourkat et principalement son président, le président Kader, ainsi que son staff, ainsi que l'ensemble des populations de Mourkat, euh, notamment le délégué de quartier Souleymane Djemé, les conseillers qui habitent Mourkat, le doyen des sages d'Anfaha, les femmes, les enfants, tout le monde. Nous, félicitons tout le monde, nous les saluons, nous les encourageons dans cette, euh, dans cette, à aller toujours dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est que Mourkat représente un enjeu fondamental pour la commune de Thiès-Ouest. C'est un quartier, nouveau quartier, qui n'a aucun équipement collectif. Il n'y a rien, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste de santé, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi euh, nous avons décidé, en rapport avec le conseil municipal, de procéder à la construction de la première école élémentaire de Mourkat. Cette année, on va procéder à la pose de la première pierre de cette école. Le marché a été déjà lancé et attribué provisoirement. On est dans les dernières phases pour que l'attribution définitive soit faite et qu'on puisse démarrer ce projet-là. Parallèlement aussi, nous sommes en train de chercher des partenaires que j'ai déjà envoyés sur le terrain ici, prendre contact avec le délégué pour visiter le site du poste de santé et le site de, la case des tout-petits. Donc nous voulons que, Inch'Allah, si ces partenaires-là vraiment s'engagent, que l'école élémentaire se réalise parallèlement avec le poste de santé et la case des tout-petits. Donc nous prions Dieu pour qu'il nous permette de réaliser ça dans les plus brefs délais. Maintenant, pour terminer, on ne peut pas venir à Mbourkar sans parler euh, de foncier. Ça, c'est évident. Donc ce qui a rendu célèbre ce quartier, c'est le foncier. Donc euh, dernièrement, le président de la République avait suspendu euh, les constructions à Mourkat, avait envoyé un comité technique venir à Thiès rencontrer les différents maires, le collectif qui se bat pour les intérêts de Bourkat, avec à sa tête le président Pape Sissé, que je remercie au passage. On m'a dit que c'est lui qui a offert à l'AIC les gabions. Donc nous avons rencontré ce comité et nous avons fait part de nos doléances, de nos réclamations, j'allais dire même de nos revendications par rapport à Mourkat. Nous tous, nous savons que ce qui s'est passé à Mourkat, c'est anormal. D'abord, la manière dont les parcelles ont été attribuées après la publication du décret de déclassement de Mourkat. Le dossier avait été confié au gouverneur d'alors, Alun Barrambeng, qui n'est plus là. Et j'ai dit au comité, conformément à l'article 301 du Code général des collectivités territoriales, c'est le maire de la commune qui devait présider la commission d'attribution des parcelles. C'est ce que dit le Code. Mais nous, maires, en tant que premier magistrat de la commune, on n'a jamais été associé à cette distribution de parcelles. Nous-mêmes, on nous a servi 65 parcelles qui ne représentent insignifiant par rapport aux préoccupations, aux besoins en logement de notre commune. Donc, nous avons exposé ça au niveau du comité. Nous l'avons dit de façon, euh, de façon très claire, de façon très expresse. La deuxième chose, Mourka se trouve à Thiès. Nous voulons que l'essentiel ou bien en tout cas la plus grande part dans ces parcelles reviennent au Thiessois. Parce que c'est 84 hectares et un deuxième décret qui a créé une nouvelle ville. Dans le premier site, des 484 hectares, il n'y a pas de problème. Vous ne verrez jamais dans ce premier site une personne attributaire d'un hectare ou de deux hectares ou de 13 hectares. Ça n'existe pas. Donc ceux qui sont là-bas, ce sont des populations démunies donc qui étaient en recherche de logement et qui sont entrés dans la forêt. Donc puisque le problème d'accaparement des terres de Thiès ne se, ne, se, trouve pas dans cette partie, nous voulons que le président, son excellence, M. Bassirou Diomaye puisse lever la suspension concernant cette zone. Parce que ça porte préjudice aux populations, aux collectifs, mais également ça porte préjudice à la commune. Parce que depuis lors, on ne perçoit plus de recettes ni de frais de bornage, encore moins de frais relatifs aux autorisations de construire. Donc, cette décision n'arrange personne, ni le collectif, qui sont les pionniers dans ce combat, ni la commune. Je pense que voilà les, quelques mots qu'on voudrait... Voilà, voilà. Euh, le président Mansour me dit, conseiller, de revenir sur le parking gros porteur. Donc on avait un projet de construction d'un parking gros porteur à Mourkat, dans un site qu'on avait déjà identifié. Et on voulait, on était sur le point de démarrer les travaux. Mais malheureusement, le décret de déclassement est arrivé et a emporté tout. Donc depuis lors, dans le plan de la nouvelle ville, le parking gros porteur est bien identifié. Donc c'est bien euh, euh, prévu dans le plan, bien identifié. Maintenant, il ne reste que le titre attribué à la commune pour nous permettre de démarrer les travaux. Donc on veut que le président nous donne ce titre le plus rapidement possible, parce que ça fait partie des projets phares de notre commune, qui va permettre de désengorger Thiès. Donc dans tous les quartiers de Thiès, le plus grand problème c'est le stationnement anarchique des gros porteurs. Donc euh, c'est un site de 10 hectares qui est très visible dans le plan d'aménagement. Donc qu'on nous donne le plus rapidement possible le titre d'attribution et on commence les travaux. Donc voilà ce qu'on voulait dire. On remercie tout le monde de la présence et de cette forte mobilisation. Et nous convions toutes les AIC à faire de même, à programmer des initiatives citoyennes. Et nous, en tant que collectivité territoriale, nous allons les accompagner dans ce sens. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement pour notre journée de <laughs> reboisement. Merci beaucoup.